sëriñ Ahmadou Mbacke bu Daaru Xuduus yebal na fi délégation bu sëriñ Ousmane Mbacke jiite sëriñ Murtada Mbacke teew na fi sëriñ Abibou Mbacke teew na fi sëriñ Abdoul Ahad Mbacke teew na fi sëriñ Baara Mbacke teew na fi sëriñ Maam Balla Mbacke teew na fi sëriñ Maam Mor Mbacke teew na fi sëriñ Moustapha Mbacke teew na fi sëriñ Abdoul Ahad moom sëriñ Cheikh Lappe teew na fi sëriñ Cheikh Ndiaye bu Joor teew na fi. sëriñ Fallou Ndiaye Daaru njaay teew na fi sëriñ Cheikh Mbacke teew na fi sëriñ Jaxate bu Grand Yoff teew na fi sëriñ Xaadim ñooñu ñoy gan yi fi teew wàcc ci dëkk bi ñu jox la kàddu gi bi xawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu sëriñ Cheikh Guèye nga xam ni mooy suñu mag ñun ñëpp di xalifa sëriñ Taïba Guèye maa nuyu bu baax di ko sant ci teewaay bi di nuyu suñu bokki joor yi sëriñ Cheikh Ndiaye sëriñ Mbacke njaay leen di nuyu bu baax di nuyu mboolem ku fi teew rekk ci bannu Mbacke bannu bu soobe ak xarit yi ak wëllëre yi ak am di jàmm yi yëpp maa ngi leen di nuyu sëñ Ousmane ñu ngi lay dalal bu baax ñu ngi lay dalal jàmm bu baax ci dëkk bi ndax sa dëkku maam la fu sa maam fonkon la boo fi ñëwee tey ñëw nga ci sa ci sa dëkk ñëw nga ci sa wàccuwaay kon ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la nuyu bu baax sëriñ Gueye Daaru Naim maa ngi lay nuyu bu baax di la yóbbante nuyoo ak i cant it ci Serigne Cheikh Baara maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi dalal itam ñëpp di nuyu itam Serigne naa mi nga xam ni bis bii moo ko woote moo koy jiite ànd ko ak njabootu alaaj Serigne Gueye gépp ànd ko ak ay bokkam yëpp maa ngi koy sant bu baax di ko nuyu di ko sant bu baax ci taxawaayam ci dëkk bi ak taxawaayam ci njaboot gi ak taxawaayam ci bokk yi li ko war lépp mi ngi koy def taxawaay bi mu taxaw sëñ Mor rek benn taxawaay féetewu ko kaw ndax lu mu waroon a defal baayam de jàpp naa ne sax li mu defal sëñ moor moom daal mun ma caa sori maa ngi li koy maa la ma waxoon sëñ Amsatu rek loolu laay wax sëñ Ousmane ci sëñ Cheikhouna nañ ma ko ñaanal ba bu mu jàmbat dara ci àdduna ak àllaaxira na ko sama borom jox wér gu yaram gu doy sëkk jox ko fanu gudd gu doy sëkk mu dund ba doyal moom mboolem njabootu alaaj sëriñ gi ak mboolam mbokk yi kon maa ngi tënk foofu kàddu yi di dalal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ci sa sant di jiiteel ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifatul am di ko ñaanal mu yàgg fi lool te kon sëñ Ousmane ñu ngi lay nuyu di la sant di la ñaanal di la dalal ci suñ dëkk bu tedd bii al muy Badar Gueye ti buqaatul mubaaraka Badar muy dëkk boo xam ne nii suuf su sell su teel boo xam ne ni képp kuy doomi sëñ Touba yenn nga fi wala fanaan nga fi en commençant par sëriñ Cheikh sëñ ah, sëñ sëñ Moustapha Mbacke sëñ Modou moo fi jëkk a teew fii fekk fi sëñ Mor Asta suñu maam boobu sëñ Omar génn na àdduna sëñ Moustapha Mbacke yendu fii sëñ Mor Asta jël ko woo sama baay sëriñ Taïba Gueye booba moo fi nekk di gone ak sëñ moor Talla mi nga xam na nii maa ngi koy nuyu ndax fàtte naa war naa ko mën a jiital ci nuyoo bi muy boroom dëkk bi tey moo ko bàyyi tey ba Guèye ñoo fi nekkoon sëñ Modou Moustapha sëñ sëñ sëñ Mor Assa jël ko teg ko ci seen jébbal ko ko jébbal ko boppam ba pare ne man sëñ Mor Assa maa ngi jébbalu sëñ Modou Moustapha ci yow gannaaw bi jël naa sama ñaari tuut tànk yii muy sëñ Taïba ak sëñ moor Assa jébbal la ko. kon nag dama bëgg nga nangul ma jéggal googu kon ñun bis bi suñu bis la sëñ usmaan ni nga moome bis bi man mii noonu laa amee ci bis bi di sant njabootu sëriñ Tuubaa gi fi toog yëpp ah di ziyaarit suñu kilifa gi nga xam ni moo nekk ci kër gi di sëñ Mortale Gueye mi nga xam ni moo jaboti njaboot gi jaboti ñëpp di ko ñaanal sama borom guddal aw fanam te wéral ko sëñ naa nag digal ma ma santal ka taaliba yëpp fépp fu daayira ahlu badar nekk ci région yi yëpp sëñ naa Guèye nee na mi ngi lay sant gis na taxawaay bi rafet na sell na mi ngi ñaanal mi ngi ñaanal lu nu man ren rek bu dewee ne yàlla na man lu ko ëpp bi jaay Cheikhul Khadim ndax bis bi antan na lépp dëkk bi it antan na lépp ñu ngi gërëm daayira yëpp yi nga xam ni ñoo jàppale am ahlu badal ci liggéey bi ñu ngi sant kuréelu Ahmad Badar gis nañ seen taxawaay ci liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax di sant waa Ahmad Badar bu dakaar Géejawaay Tëngéej te Tëngéej it ñu ngi sant kuréel bu kuréel bu ñuy wax kennal Cheikhul Khadim te dëkk Touba te Tëngéej gis nañ seen taxawaay ren euh, jàppale ñu ci liggéey bu baax a baax ak jigéen ñëpp ak xale yëpp gis nañ seen taxawaay yàlla sa borom guddal seenu fa fan te dolli seen passeef bi jaay Cheikhul Khadim sëñ Cheikhu naa suñu xel sedd na ci yow sedd na ci yow lool ndax nu ñu fekk démb fekk tey bu bu dëkk bi yokkoo xam nañu ko li xew ci njaboot gi juboo gi ak kennal gi ñépp booloo topp sa gannaaw taaliba yi ñépp topp sa gannaaw yal na sama borom guddal saw fan du jaayi Cheikhul Khadim nu yàgg ko ànd ak yow ndax suñu xol sedd na lool suñu xol sedd na lool noo ngi sant yàlla bu baax noo ngi nuyu sëñ naa dañuy yëkkat nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu jotaloon na ko ci sëñ moor mi ci biir kër gi ak baylaat ci Touba ak waa kër Baye Taïba Guèye sëñ Cheikh léegi la fi jóge ak sëriñ Aliou Guèye mi toog ak njabootu sëñ Touba gi fi nekk gépp nag di leen xamal ne tamit noo ngi ci seen ginnaaw tey noo ngi seen ginnaaw ëllëg li nu fas yéene daal mooy lépp loo xam ne yéene nga ci nu ànd kook yéen lu ngeen nu ca digal dana nu ko def lu ngeen nu ca tere dana nu ko bàyyi ndax yéen wax dëgg yàlla sunuy maam yi noo bokkoon nekk fii ci dëkk bi di doxal doxalin wu rafet loole it ba ngeen ñëwee da ngeen ko li dëgëral ko lool ndax amul lenn lu ngeen def loo xam ne du ngeen ñu woo ànd kook nun seet la cay sunuy njariñ ngeen jox nu ko nu jariñoo ko kon loolu ab cër la boo xam ne na ko maam joxe woon mag ña noonu ngeen nu ko joxee nu ko raw sax yéen kon noo ngi leen di sant ni leen ñaanal yàlla sunu borom mi nga xam dara tawu ko mu taxawu leen ba li ngeen di yéene ci badar lépp ngeen matal ko ci na ngeen ko bëggee te nu ànd yéen. noo ngi sant waa daayira bii nga xam ne ñoom la ñu àndal tamit ñu jóge Touba muy daayira ahlu badar bi nekk Touba yàlla dogal Ibra Thiam mooy moo nekk ci bopp ba. ndax fi mu nekk nii Badar ñoom ñëpp ku fi juddoo woon baa nga dëkkan fi rek bëgg nga fee dellu siwaat nekkaat fi te loolu it ginnaaw bu yàlla wéyee wax dëgg yàlla ba ko alaaj sëriñ tobbee muy aw sas wu rëy man jàppan naan sax sas woo kenn ñimetu ko bay waaye bu sas woo daa mel ni fi mu jamono yën toll bay nañ ko ba ba mu set wécc kon nag la ca des mooy ñëw di ji ak ñun ñi nga xam ne noo fi dëkkoon ñëpp kenn ku nekk na nga dellu siwaat ci dëkk bi fonk dëkk bi bu baax nanga fi am barab te bu fi gëj la aaju joo am dina faju incha allahu rabbi ku ko def de li ma mën a waat ci Sëñ Tuubaa mooy loo bëgg da ko am bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallim ala sayidina muhammad wa ala alihi wa bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu ngi sant Sëriñ ñoo ngi sant sëriñ Tuubaa xaadim rasool bu baax di ñaanal sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo jiite mbooleem taalibi murid yëpp yéene jim am ci liggéeyal maamam sëriñam yàlla defal ko ci lu kawe njort te am nañ ci rafet njort bu baax a baax ñu ngi nuyu sëriñ Mortala Gueye mi nga xam ne moo jiite njabootu Badar te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér kon njabootu sëriñ Tuubaa yi fi nekk yëpp ak képp koo xam ne bàyyi nga sa yitte ñëw ngir yàlla ak jëmm sëñ Tuubaa rek kon ñoo ngi lay ameel ak cant ngir suñ taxawaay boo xam ne waroon nañ koo am ci bis bi kon ku ñu fa wéet ku ñu féete ci taxawaay boobu rek ameel nañ la cant ameel nañ la ak njukkal ñaareel bi mooy mooy li ñuy wax ci dëkk bi ndax nit kenn du ko toppatool alal boppam yaakaar naa ne kii suñu royukaay muy muy suñ Muntaxa ci jamono yi buñ demee lépp lu muy def ci lu baax wala bépp pas-pas ak bépp bu mu yéene bu mu am yaakaar naa ne Touba la koy njëkke feneen fu mu ko mën a def dog ko faa def yéen nag fii mooy seen Touba kon lu ngeen di def fii ngeen ko war a def lu ngeen di tàmbali fii ngeen koy tàmbale loola nag rafet nañ ci njort léeg-léeg ñu wax ne diw bu dellu siwaatoon ñam fa bàyyi duñu am kersa loola mustahin la li waral lool mooy innaka maytun su ma innoo maytoon su ma inna ko yomal xiyaamati him dara bi mu tax ta siman kon dellu siwaat mun am waaye kon dañuy wax ne su ngeen dajeeg seen waajuroo du ngeen am kersa kon yal na yeex waaye ku ci dajeeg sa waajur ci taxawaay bii ma gisagoon su dee loola moo continuer su ngeen dajeeg seen waajur wa du ngeen ci am benn kers ndax waxoon naa daaw ma ne 2007 ba léegi ci ndimbalul yàlla ak kattanam yàlla defal na ma at mu jot ma def ma teewee ko kon lu dolli ko xam naa ko lu fi wàññi ko xam naa ko loola nag la tax loola mën a am jëmm ji moo tax ndax yaakaar naa ne bi muy alay siñ gi di jóge fekkoon na ko ci yeneen yitte mu bàyyi lépp ngir yàlla ak jëmmi Sëñ Tuubaa ne nit amul lu dul alalam kenn toppatool kenn sa mu bàyyi lépp ak la situation yooyu yëpp mu bàyyi lépp ak lam ca mënoon am ngir yàlla ñu jël ay gone yu toll nii di leen jàngal alxuraan te di leen ak di leen jàngal xam-xam te yaakaar naa ne gone suñ ko toppatoo rek mënees naa rafet njort ci lépp ndax ñoom ñooy ëllëg kon taalibe yi dëgg la yéen a ngi góorgóorlu waaye ngeen gën a yokk seen tànk njaboot yi ci ginnaawam tam mbokk ak ñoom alaaji sëñ ga yit fu ñu tegoon seen tànk xam nañ ci lu bari waaye luñ ko jàppale woon ñu gën koo mën a doole ndax jataay bi gën a mën a dëgër ndax am na ci yitte yoo xam ne mënut a ñàkk te ku ko am da ko doxe te daara boo ko ginnaawalee rek am lu manqué loolu ñun xam nañ ko bu baax ndax yàlla nattoo nañu ñu yor daara di ca xëy di ca gont ñoo ngi lay ñaanal ci barkeb Serigne Touba yéene ji nga am ci dëkk bi yàlla na ko yàlla mottali te dara bañ koo gàllankoor ñun daal ñu ngi ci sa ginnaaw foo taxaw danañ fa taxaw ba àndeek coobare yàlla incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Cheikh Moustapha yaa neex a àndal dal nga xel. wo man nga ruuy feeguloon jebal sabaay wo man nga gumba yi booj la fañi tagal fanoo góor ak jigéen yaa di jox ay càngaay ku la daw nga dab ku fay nga fay le doonu fay borom jirim yeg baay yaay seeni baay Cheikh Moussa Kane yaate ñëgub lislaam ñu saqu ba doxoo yaay jën wura yaate murid seen mbar mi naay sooral amini mahal amini jeewaxarëy faw سر الأمين مع الأمين جي وخري فوق الأمين من دم شيخ بمبي الله واترنا دريها المصطفى كرما دهرا بعرف سفسي منك يا الله وصلينا بتسليم عليه به وروه الراها بريحان يا الله